sur la sortie de Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice au Sénégal, a exprimé des réflexions sur la gestion politique et judiciaire du pays, notamment en lien avec le cas Ousmane Sonko, empêché de se présenter à l'élection présidentielle après sa disqualification judiciaire mu indi tamit ay observations publiées dans une lettre ouverte et les réformes nécessaires pour renforcer li nga xamante ne moom mooy la stabilité démocratique du Sénégal pour continuer il est revenu euh, sur les événements ayant conduit à l'invalidation de la candidature d'Ousmane Sonko Ismaïla Madior Fall estime euh, qu'une réforme constitutionnelle est indispensable. Il plaide pour une suspension des décisions judiciaires visant un candidat déclaré jusqu'à la fin de l'élection présidentielle, un constat d'incohérence institutionnelle. Grand Mokho. Mais il faut que nous Major, non xam borom xam-xam la xam la. Mhm. Mhm. loolu moom il faut reconnaître c'est mon professeur. man dama ne la man. waxu saa yoo fi toogee yaa ngi naan c'est mon professeur. c'est mon professeur bi léegi dafa. dawaat non euh, moom dafa jaay crédibilité rek. mais xam-xamam tamit kenn nattable ko. Mhm. mais dafa wax lu am solo. man je me toujours dit ça. gis nga Sénégal fii ni ñuy disqualifier un candidat à l'élection présidentielle dafa yomb trop. dafa am loo xamante ni gis nga la légitimité populaire appartient au peuple. gis nga peuple bi. Mhm. ñe sañ na képp ku bëgg a doon candidat war nga mën a am war nga war nga am pouvoir doon candidat. d'accord peuple bi moo war a xool kii kat bëgg naa ko voter parce que attention li yi daan def di éliminer ay candidats du ñu bokk pour la seule et simple raison bëggul concourir ak ñoom dañu war a sincèrement réforme constitutionnelle li ñu war a def. Mhm. dañu war a fexe ba léegi. président de la république du am pouvoir tere nit dina bokk wala du bokk. Mhm. parce que nit ki même bu détourné ñu tëj ko mu détourné cent milliards. mais c' est pas c' pas c' est un juge moo war a déclarer ne kii warul doon candidat warul a le peuple dañ ko war a yóbbu ba même bu ñu ko condamné na doon doon candidat peuple bi nag libre na ne kii mënul détourné sama xaalis même le peuple dama ne la le peuple a toujours raison. même s' il a tort il raison d' avoir tort. dans une démocratie mhm. le peuple a toujours raison même s'il a tort il a raison d'avoir tort bu choisir dañu war a bàyyi peuple bi mu choisir défaut yeeg yooyu peuple bi xam na il sait choisir bu waral na peuple bi il sait choisir ñaata nit ñoo fi ñëw ci élection législative yor seen ay milliards bëgg juste lenn rek lañ buggoon muy lan immunité parlementaire hmm. ñaata lañ ko ci jox bul fàtte ne Tahirou Sarr bi nga xamante ni nit ñi ñoo koy xas ñu ci gën a bëri ndax yorul nag yoraalewul am na lu mu sutural la mais mën na jàll dem assemblée par contre Ablaye Sylla ak ay milliards am yaakaar moom mu dem mu jàll quest que ça veut dire il faut savoir décrypter ce message là ça veut dire que. mais moom est-ce que amul siège. Ablaye Sylla wóoruguma ah, ah. mais Tahirou moom je pense que ne dina jàll ah. Tahirou plus fort plus fort reste mais attention loolu dafa am lu muy signifier même bu dul tukki mais euh, euh, ki euh, ki nekk King Fahd Palace noonu kii si. kii euh, le candidat là kii si. ram Mamadou Racine Sy Mamadou Racine Sy mais narul am député mhm. te c'est un milliardaire pour dire que ne peuple bi xam na ni muy voté on a un peuple très mature et il n'appartient pas à un juge mu toog ba mu neex ka parfois ci parce que s'il est de bonne foi mais juge bi le juge peut être manipulé par des hommes politiques mu écarté diw écarté diw alors que peuple bi du loolu la bëgg mhm. ñëpp xamoon nañ ne ñëpp xamoon nañ ne Ousmane Sonko bu dem ce qui s' est passé avec Ousmane Sonko loolu moo ñu ba léegi nii parce que bu fekkoon Ousmane Sonko moo doon président rek mais mhm. yoo xam ne day am légitimité lijjanti ko. mais par des la ñu fexe ba apart écarté ko moom léegi erreur boobu noonu moo tax euh, euh, moo doon moo doon président de la république. Mhm. Diomaye day doon premier ministre dualité mënu fa am. Mhm. bu ko neexatul liggéeyul li muy liggéey mën na ko demal. très bien loolu la. alors euh, la sortie de Ismaïla Madior Fall mu ne le triomphe le triomphe de Pastef c'est la victoire du peuple ñëwaat tamit tuuti euh, sur les événements qui ont empêché Ousmane Sonko à se présenter sur euh, la présidentielle waaye tamit jot na dogal ay yenn proposition concernant candidats yi nga xamante ne ñi ngi ci ay jongante. waaw mais xam nga hmm, Ismaïla Madior mooy li. doyen moo ko doon wax. sax boroom xam-xam la. Mhm. ñëpp xam nañ ni euh, nit ku ku ku ku xam droit la ku ku jàngale droit la. Mhm. waaye léeg tam boroom xam-xam yi xam nga ak caay-caay day lalu ci seen ci seen xam-xam mooy dal boroom xam-xam yu bari parce que man jàpp naa ne la Madior Fall. Mhm. xam naa liirul nag assise yi. daa ah, liiru ko waaw recommandation yi xam naa liiru parce que bu ko liiroon. gis nga proposition boobu mu def. grand doon ko développé léegi. waaw dama ne loolu assises yaar yi ñu toogoon doon waxtaanee wàllu yoon naka la ñuy def ba def ay réformes judiciaires évoqué nañ ko. xalaat nañ ko ba teg. waaw évoqué nañ ko. xool dañ koo xalaata xalaata xalaata xalaat ba mhm. teg. man recommandation yi dama ko lire. c'est la réponse que j'attends. xool est-ce que xamul la. c'est entre les nee naa la bàyyi ba ñu bañ bañ bañ installé assemblée ba liggéey bi tàmbali. waaw ba réforme yi jàll. Mhm. di nga gis beneen Sénégal xar kanam bu bees. si wàllum yoon. d'accord xam nga lu tax. Mhm. Euh, Mamour li grand wax dafa am solo. Mhm. te foofu la Sénégal jëm. Sénégal délit yi ñeel wàllum diffamation ak délit d'offense day dañ dañ koy dindiwaat dañ koy soppiwaat ba kenn dootu fi tere candidat kenn dootu fi tere nit ci ay kii yu tuuti ne dootoo nekk candidat wala ñu jàpp ni ñu doon gisee nii ne président oh président de la république Diomaye. ak kii xeex. li nga wax Trump que les autres. kii euh, nu tudd ki nga moo toog woo ay militants ay sympathisants am leen dem leen Capitole. ngeen attaqué ko. attaqué dem Capitole ci sénateur di leen yuuxu. Trump mii ay militant armé nañ dem ba biir Capitole. ba am ñu dee di sama scandale armé wu laa la wax. am ñu dee. xoolal compte Facebook am nga xam ne ay millions de personnes ñoo koy seetaan gars yi bloqué ko. ay heures après ñu kii waat mais gis nga terewul dem candidat terewul ko nekk candidat. tey il mooy le président des États-Unis des États-Unis léegi nag lu tax moom ma daan dem ci lancé boobu. cette nouvelle forme démocratique. dama ne la waaw réew mi. Uh-huh. ku yàkkamti de doo ko fekkee nag. waaye réew mi day soppeeku. ala kulli ci wàllum yoon. ay président Bassirou kii dañ doon xuloo jàpp nañ ma dootoo ko dégg si réew mi man maa la ko wax Serigne Niang li taxoon Ousmane ko nekk candidat dootul tere nekk nit candidat loolu ñoom Alioune Tine ñii ak ñoom mhm. Seydi Gassama ñoom ñoo ko proposé woon ba président jël ko en compte parce que diffamation ni ñu ciy téye nit te dem nañ ba proposé ni diffamation sax nit waratu ci tëdd peine donc mën nañ la nag teg ay daan ay daan sanctionné la mhm. mais waratul tax nit dem kaso des amendes waaw est-ce dégg. yooyu mi ngi ci réforme moo tax ma ni Ismaïla Madior. Mhm. est-ce que liir na liir na euh, kii recommande wala soit aussi tamit. Mhm. bon bëgg na xam nga les des fois tam da ngay bëgg a dugg si coow yi waaw ñu ni xalaatoon na ko <laughs> dugg ci li sa kii di wax <laughs> salma ah. buruxlu buruxlu ah. waaw xam nga man <laughs> salma laa ko déggee yooyu dafay am. waaw jafe nga ni naa si bokk bu bu lu waare. boo lëggee ñu ne Ismaïla sax joxe woon na lu mel nii moom bañ ko woowee ci assise xam nga dafa joxe gàmm. ne dafa jàpp. Mhm. Ah, bañ ko woowee si waxtaan woowa. Mhm. Ismaïla Madior daf ne woon dafa jàpp. Mhm. mais assise yaar yi ña toogoon. lii mu wax nii. demal nga lii recommandation yi su ma amoon temps léegi sama mbuus mi nekk si biir. dama la koy génne recommandation. exactement tegal la point par point. procureur rek. dooleem sax dañ koy wàññi. procureur dootul am sañ-sañu ñu demander liberté provisoire pour am nit si nu mu ko neexee si neexaayu bakkanam mu siy bañ ànd wala mu si ànd. très bien dootul am yooyu yëpp dañuy ñu ngi jëm ci réduire véritablement les pouvoirs du procureur réduire également les euh, les pouvoirs du président de la république xam nga bas moo tax énoncé woon na ko. Mhm. si bu ñu jàkkaarloo euh, presse bi. ni ñun suñu combat si approche suñu combat la mos a doon pour ñu mhm. wàññi dooley président kon jàpp naa ni li mu proposé noonu ci loola ca wàllu woowa. jarut yàkkamti gars yi ñu ngi ñëw assemblée lañ dem réforme yi dafay ñëw dafay nekk en vigueur et à partir de ce moment la le Sénégal véritablement euh, dafay dem vers le vers euh, vers un état de droit. très bien alors euh, grand Mokhou pour pour pour terminer rek foofu. Ah. Mokhou ah. sur les développements ah, de Serigne mu continue voilà. waaw mais xam nga àdduna àdduna pour man. Mhm. société day avancer. te yegg nañ fenn foo xamante ni c'est pas parfois. Mhm. pour des pour des euh, condamnations. Mm de délits c'est même même c'est pas